moom mi nga xam ne weer wi ba mu teroo moo ndokkeelam weer wi ndokkeel boppam di ndokkeel boppam ci weer yi naa ni indi ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun badaali naafina jamaalu hilaalu rabbi fii jaa muhammadun te tàmbale la bi saa wax ma la wàllu weer bi ba mu teroo waxutu de bi ngi ndokkeel boppam la ndokkeel ndax li tax def ko mooy yonent bi soppe bi ne moom ñene du féere kenn waaye dina fiire gu ko rew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nag moo tax ñu daje moo tax ñu koy màggal fu nekk ci àddina bàyyi radiyallaahu anhu dañ ko doon laaj ne ko gàmmo ak bésu Laylatul Qadr lan moo gën mu ne leen ku nekk ak bis mu ne leen Laylatul Qadr dañoo wax ne xayru min alfi shahri li tax ñu wax loolu ñu ne tanazzalul malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa li mu wali wa alquran wàcc ñoom alquran nag yonent bi moo ta mu wàcc sallallahu alayhi wa kon mu ne nag yonent bi boo moo gën lay toxatal juddu yonent bi bàggal ko moo gën lay toxatal kon ñu ngi sant yàlla yaa ngi ci ñaan yàlla ñi nga xam ne ñu ngi ñëw yal na leen yàlla indi ci jàmm fekk ci jàmm fekk ji ci jàmm ñu delluwaat fekk ci jàmm te lépp ci nit ñi ñaan yàlla ñu ko yàlla may bàyyi la doyal laa ne def daan wante nag ba si gàmmoo def ñu nekk addiye li ci gën ñu ngi jàng salaatu faatiha di joo jox ti bi addiya ñun na ñun gàmmu mooy suñu feet ki gën a mag mais sax am na yeneen feetu yu feetu mais gàmmu daal moo ci raw bu gàmmu ñëwee daal yàlla dinañu ubbil wërsëg mais ñu jàmb kër yi ñu peintre ko defare yëpp bettalaat yëpp am loo loo xam ne duñ ko defee dara lu mel ni ko gën a lee gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a màggal ndax moo wax ne inda allah ma malaikatu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima comme yàlla moo njëkk rek wax loolu jullit ñëpp war nañu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi moom su jot jotaan loo ko naqee rek di ko am boo ñëwee ne ko damaa bëgg a jënd sax yére gàmmu ndax juddu yonent bi bu ne sallallahu alayhi wa sallam loo bëgg rek dana la ko jox maa ngi ndokkee doomi bàyyi yëpp di ko dalee ci Seyda Roqe ba ci gën a ndaw moom mi nga xam ne tey moo nag bag ci doomi bàyyi di ñaanal tam xalifa bi nga xam ne bëggul sax ku ko wax xalifa dafa bëgg ku koy wax xaadibatul umma ak mboolem ñi ci des ak mboolem soppi bàyyi di ñaan di ziyaare itam di ñaanal Cheikh Baba xam ne tey fu nekk ci àddina bi daanaka moo fi gàmm du Medina rek macha allah dafay gàmm Amérique di gàmm ci Nigeria di gàmm fu nekk ci àddina bi ñuy sant yàlla di loolu ñaan ñoom ñëpp yàlla yàgg leen fi ma leen fan wu gudd wa ànd ak jàmm ñu yàgg fekke yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen a amee rajo télévision bi Futurs Médias xaw ban télé la Sénégal télé Sénégal set yéen itam yàlla leen fi yàlla yàggal barkeel seen loxo te barkeel ba barkeel ko fépp foo xam ne nag kii bi àgg na fa yàlla na fa yow àgg ak barke baay ak yonent bi ñu ngi nag ñaanal ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci àddina bi yëpp fu ñu mën a toll ci àddina bi ndax taalibe Baay amul foo dem ci àddina bi te du fekk ko fa baay amul foo dem te fekk ko fa baay kon nag ñu ngi ñu ngi ziyaare ñëpp di leen ndokkeel ci bés di delluwaat daal di ñaan doomi baay ak sëtam ak soppe yi di ñaan yàlla gàmb gi dañ ci dugg ak bisimilah pare ceeg alhamdulilah ak lépp luñ ci mën maa ngi cee occasion nag te damaa am guddi goo xam ne dama koy def at mu jot ci gàmm ma sante ko yàlla li ma yàlla may weeru gàmm lool ma di ko dundal baabale bi ni ma ko defal. ak samay soppe ak samay njaboot yëpp maa ngi ci maa ngi ci occasion di ci oo yëpp mboolem jullit yi rek kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah rek ashhadu anna muhammad rasulullah baabaleel moo ñu koy def ci ndégal na nag xale ba see maay bala ma koo laata jàpp fàttali nit ñi parce que bés boo jàpp boppam ndax bu set balaa gàmmuwaat ñaari fan la damaa dem ba ci moom yéen digal ci boor tàggu ko bu ñaanal ma mu ne ma amoon nga digal bu am nga digal ci lu nekk macha allah may sant yàlla ci loolu di sàkku nag ñaan ci mboolem njabootu baay ak taalibe yi di leen gërëm bu baax di leen sant ngeen baal ma dafa xat te nit ñëpp a ngi war a dem wa maa zaalika alaa bi aziiz wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh